te nag boo xoolee sax suñ diine yi ñëppay doon waaw ndagam ñëpp a mun doon nag na ku nekk samp ndëndam rek ku mën na jël mais moom moom moom li mu liggéey ci sunu réew mi ak jàngat bi nga xam ne nekk na ab ndam pour bépp doomu senegal ci àdduna bi bu mu taxawee ne mënoon na samp ndëndam waaye doom la bëgg a sàmm waaye it bëgg na jàmm wéy ci réew mi mu ne day dellu ginnaaw bëggatul dekk candidat contrairement à li ñu sàmmoon ñun li ñu sàkk woon ñun loolu dugal na Sénégal ci histoire te nag sunu démocratie war nañ ko tiitaroo de sunu démocratie moo ñu may Senghor Senghor ñëw ba xam ni ah réew mi commencé na ko dépassé baleen ma ci kàddu yi mu dénk Abdou Diouf ndax moom Senghor bu muy nekk président jamono yooyu bu ngeen ko seetloo Afrique coup d'état yi dañoo bëri woon réew yu bëri ay militaire jiite ko ñun nag yàlla sàmm nu ndax amoon nañ démocratie bu tàmbali woon ñu wéy ci ba Abdou Diouf ñëw xam ni dafa war a wéree liggéey mu liggéey nag lu am solo teg benn administration bu am doole ñu ubbi démocratie démocratie boobu moo indi Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade falu gëmloo ñu ni lépp lu am ci àdduna war nañ ko mën a am fii ci sunu réew mu décomplexé na bu pare it Macky Sall ñëw in nag li ñuy woowee benn vision bu englobante bu nga xam ne c'est vrai lépp lu ñu war a séntu ci àdduna war nañ ko mën a am fii waaye nag bu nu fàtte Sénégal bi ci biir le Sénégal de l'intérieur bu ñu fàtte Sénégal bi néew doole le Sénégal social kooku nag moo ne moom mission ci boppu Sénégal dina jeex bu soobee yàlla ci jongante yi ñu jëm moo waral ab coalition jóg mu nekk ay parti ay mouvement ay kilifa ay kuréel yu bëri yi taxaw laaj ndax ma nekk seen mbër ma ne leen nag bu soobee yàlla ndagam Sénégal bu bees lañ bëgg a tabax man pare naa pour nekk seen mbër bu soobee yàlla pare naa it li may ñaan bu soobee yàlla benn président la ñuy fal ci joŋante yi ñu jëm waaye waaye période bi ñu toll nii dafa jar ñu waxtaanee sunu réew kon nag képp ku bëgg a samp ndëndëm na ñëw samp ndëndëm wax nag lan mooy yéeneem ci sunu réew bu boobaa sénégalais yi atte ndax ñoom rek ñoo war a mun atte maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm